vision nabi vision biondo wabi partemu kono taki farangom kiriku kiriku epati na ki kay ba ndax yàlla ñu bañ a amati ay député yu mel ni Coura Macky te ngeen dimbali ñu ngir yàlla seen liste bu leen ci defati ni ñu mel ni Coura Cheikh Abdou Bara Dolly ak ñeneen ñi ñëw ensemble di fa nelaw andi leen ay député yoo xam ne dinañu xeexal askan bi nekkal fi askan bi allah wasalaam. oui bravo merci Bassirou Diomaye fay bravo merci Bassirou Diomaye fay qui dissoudre l'Assemblée nationale. La Vision. On est avec toi, on est derrière toi. On va vous donner une majorité à l'Assemblée nationale s'il y a des élections. Nous sommes toujours derrière Bassirou Diomaye Nous sommes ngi ci sa Ousmane Sonko tas bi tas assemblée nationale sedd na sunu xol Inch'Allah, allah dina la jox majorité l'Assemblée nationale euh, nga gouverner réew mi ci ni gouverner. dinañ la ko jox dinañ topp sa gannaaw dinañ la woteel gis nga ñii yàq réew mi lañ bëgg il faut les poursuivre il faut les poursuivre bul bàyyi kenn topp leen parce que ay yàqkatu réew lañu ay yàqkatu ay yàqkatu réew lañu nañ leen topp bu kenn des.

Naby Vision waxtaan président assemblée nationale. ci ndax loolu lu ñu rafetlu la. am hmm. déet ci jamono bu ñu toll. lu ñu la. ci laa jël décision. waaw waaw ne assemblée nationale bi. woy tas ba tas tas nañ ko. tas nañ ko waaw tas nañ ko tas nañ ko. yu bees yoo tas nañ ko. mu tas nañ ko. tas nañ ko jërëjëf jërëjëf jërëjëf. li waral ma tas assemblée nationale lu dul bëgg ñu delloowaat ci askan wi pour man mii ci sama gore ma laaj leen ñu jox ma yéen a yu tax yéen a gore mën a doxal président Sonko yéen a goro yéen a gore kon oh. tey jii askan wi moo moomaat boppam oh. moomaat baata te am sañ-sañu xam ne kan lay jox majorité assemblée nationale pour mu doxal oh. article 3 bu constitution bi dafa wax ne alhamdulilah patriote yi bëgg war naa leen siyaare leen gars yi gars yi lu bi am na de gars yi gars yi lu bi am na de <laughs> gaa yi lu bi am na de président bi am na penalty yi dugal ko de cey la bis man xamoon naa ne suñu xol yi tey faa mu sedd. Naby Vision. dañoo réew amul maam Diop eh, bu leen ma fontoo kurama ki nekk di saaga nit ñi dem leen ngeen toog yi assemblée nationale soxlatul yéen nit ñu ñàkk wala ñu mel ni yéen patriote yi leen dong moo ci des ci ab liggéey. bi ñu dex woon ci présidentiel yi nañ ko def nañ ko duubul pour jox sunu gars yi masruut absolu loo xam ne mosul am ci Sénégal mën naa nekk te dañ koy liggéey teg ko ci kaw table ji loolu sikki sàkk wu mën a sénégalais dañ ñu koy delloowaat buum ca mboy mboy ba président bi sunu xol sedd na ci yéen sunu xol tey bu nu tëddee dañuy nelaw ndax non non la mën a demee <laughs> alhamdulilah rek la mën a demee ah warul mën a demee leen ngeen toog Sidna Ousmane Sonko du seen morom suba nag dem leen assemblé suba le 13 waaw déclaration politique générale bi suba la <laughs> dem leen dégg ngeen <laughs> alhamdulilah yitte ji daal mooy dox jëm ci la 17 sereetul pour jox suñu gars yi masruti absolu incha allah rabbi Pape Djibril Fall góor day dëgër wowal kongu te bàyyi di ngay def yéen bis bii moo leen doon xaar le 12 arrangé wu leen parce que du ngeen dugaat assemblée nationale na leer patriote yi ndaw yi Sénégal yi bëgg réew mi lañ bëgg a dugal biir assemblée pour ñu liggéey barke alxuraan yal na ko yàlla def réew mi am jàmm. waa Bennoo toog rendre yi maa ngi wax ak sama mbokk patriote sama doom yi sama xarit yi sama ñëpp ngir yàlla ak yonent bi nañ leen génn ci détails yi ñu nekk ñu concentré wu ci lii ensemble bi tas nañ ko dañ ko war a voté waat le 17 bi li ci des pareetu jours yi dañoo gaaw nañ leen concentré ñu génn ci non sens yi génn ci débat yi yeneen débat lu leen neex nañu wax lu leen neex nañu def nañu saaga nañu xotteeku ñun nañ leen bàyyi benn point la ñu am mooy nañu nangu ensemble bi am na lu ñu soxla ñoom ñoo ñu fa ëpp majorité majorité boobu la ñu bëgg a nangu képp koo xam ne amoon nga lu la naqari ci Macky Sall sa doom yi mu doon rey ak ak ak yi nga xam ne dañ ko loi yi nga xam ne dañ ko bëgg a jël bëgg koo teg te mënaguñ koo teg parce que amaguñu majorité ci ensemble bi ngir yàlla ak unité bi patriote génn leen ci détails yi génn leen ci détails ay Cheikh Omar Diagne ak ay nii buñ leen yóbbu feneen nañ leen jëm ñu booloowaat bu kenn mere kenn ñun ñëpp nañu ànda daal booloo mooy doole ku ci mere woon sa moroom jéggal ko te yàlla tax ngir yàlla na ànd jël ensemble bi nañu leen bàyyi eenante bi ñun patriote yi suñu biir ñu jotee xuloo nañ leen jéggalante ngir yàlla ñu duggaat ci combat bi ko ñu jëlee woon combat bi bu njëkk nañu leen taal laay fii nañ leen fay wax lu am solo ku yéeg sa laay wax fa lu war ta wax wàcceel lépp lu ñu war a wax mooy nañ leen gagné ensemble bii nañ leen essayé ñu ko gañee loolu moom mooy dëgg te bàyyi détails yu sew yeeg yëpp man moom dootuma fi tafati kenn kuy taf maa la dàq taf mais c'est fini dootuma may kenn bës ngir yàlla ak yonent bi dañ leen jublu ci ci liggéey bi loolu mooy dëgg. merci son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye maa ngi lay nuyu patriotiquement c'était une demande nationale que nga dissoudre assemblée national utiliser li nga xam ne mooy article bi 87 ndax dañoo gis ne que carrément majorité mécanique bi nga xam ne moo nekkoon assemblée nationale. lenn taxu leen fa toog lu dul xaxar ak yàq li nga xam ne moom la gouvernement bi bëgg liggéey kese leneen loo defoon lu dul lii xaariñ ko woon ci yow merci encore une fois te tey lii dafay permettre ñun ñi nga xam ne ñooy sénégalais ñu xam ne xakaarma yow liggéey moo la tax a jóg ndax ku liggéey tax a jóg assemblée nationale dafay doon loo xam te assemblée nationale bu crédible la assemblée nationale boo xam ne sénégalais yi bu ñu toogee di ko seetaan dinañ ci gis assemblée de qualité te assemblée de qualité boobu la ñu bëgg même boo bokkee boo bokk yaakaar wala nga bokk ci opposition wala foo mënti bokk. Naby Vision war ngaa mën a nekk député du peuple représenté peuple bi lépp loo gis nekk carrément bu ñu koy yóbbee assemblée nationale peuple bi nga xam ne moom moo fi nekk nga koy teewal mu doon loo xam day baax ci moom yow da nga war a taxaw assemblée nationale boobu la ñu bëgg boo dina am ay ndaw yoo xam ne dinañu xam loi ak règlement. ba budget wala lépp lu ñu fa indi loo xam ne dafa nar a yàq askan wi dafa nar dal ci kaw askan wi wala loo xam te dafa war a njëriñ askan wi mu mën cee xam dara mais assemblée nationale boo xam ne saagante xasante loolu incha allah rabbi dañoo bëgg mu jeex Sénégal kon monsieur son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le gouvernement et son premier ministre le chef du gouvernement muy Ousmane Sonko ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen wax ne leen carrément lii rek la doon Sénégalais di xaar ci yéen lii nag gars yi moo ci des. tànn ay nit ñoo xam ñu crédible lañ tànn nit ñoo xam ne Sénégal rek leen tax a jóg ñu teewal sénégalais yi fii nga xam ne mooy pencum ndaw réew mi pour Sénégal mën a doon dëkk boo xam ne instant bi dina nekk en voie de développement guys kontaan di wax ne que carrément majorité mécanique. Naby Vision. dafa war a jeex bi Sénégal jeex bi assemblée nationale majorité bi nga xam ne majorité technique lay doon majorité bi nga xam ne peuple bi moo ko fay tax a toog majorité boobu la ñu soxla incha allah rabbi vive Sénégal jaajëf.